ma sadd bayit yi tey woote bisub seex jiili bul wuute ñëwal nag mel ni kuy rooti ci teeni ngërëm yu dul jeeti ñëwal ngir sàkku loo bëgg a am ci yéene ji sell ànd ngëm bisub yërmande waa ji ko xam fu ñuy wooteeti gis kooti borom bis bii di sunu ilimaan ju màgg ja lool bari kiimaan te doon ko rafet le ay melokaan ba tax ñu diine naw euh, kooti ñetteelu secteur bi mooy wàllu wër gi yaram wër gi yaram ak cet moom lañu boole woon ak cadre de vie ndax yet ñett yëpp foo naa ne dañuy dañuy dugalante donc loolu également du am jafe-jafe par rapport au poste avancé lim bi nekkoon juróom ñu war ko samp ci ay bërëb yoo xam ne comité bi identifié na ko pare leneen li également service d'hygiène mooy désinfecté yenn dëkk yi dëkkuwaay yi loolu également ñu war koo tàmbali peut-être vingt cinq juillet donc foo également service bi engagé wu na pour mun koo def ci diir bi nga xam ne noonu ngeen ko noon ngeen ko bëggee wàllu cet gi également ngeen jàpp benn bés muy le 22 juillet mu nekk journée de nettoiement phare maanaam mun naa ne benn bés la boo mais cela pas dire que tamit yeneen bés yëpp foo naa ne muy la mairie foo naa ne ñi ngi ci ak yeneen tamit taalibe yi mais li ci des it mooy ICG bi nga xam ne structure état la dina ñëw aussi ak ay moyens accompagner initiative boobu lëkkaloo aussi ak la mairie de de Touba Mosquée bi nga xam ne aussi moom it neen na ci dugal loxoom ak ay gens ak ay matériels kon yaakaar naa ne suñu boolee doole yooyu yëpp. ak doole taalibe yi am nañu yaakaar ne bés boobu également dina nekk une une réussite incha allah rabbi leneen également peut-être loolu doléance la buñ ko ci raax rek muy problème mu ambulance bi nekk centre santé bu Bagdad loolu également dinañ ko yëgal suñu kilifa xool lan nañ ko mën a saafara ci diir bi nga xam ne moom la moom mooy li gën euh, wàllu assainissement mooy li nga xam ne également muy volet bu am solo mun nañ ko dugal sax ci wàllu santé loolu également dina am ñeenti camion yoo xam ne donc ONAS engagé wu na indi ko si diiru ñeenti fan pour ànd ak yéen également ci organisation bi boole ko également li nga xam ne mairie Touba Mosquée mi ngi ko ciy tàmbali encore dugal ko ci volet assainissement donc yaakaar naa ne loolu également ñaari suñ suñu lëkkalooyee li ngeen ci bëgg suñu borom mën nañ cee defal defal ndam wàllu ndox foo suñ ne neen ndox également Touba dina ci am liggéey boo xam ne yaakaar nañ ne ñu ngi koy tàmbali jëmale ko ci peut-être grand màggal mais bii nga xam ne moom lañu ñu dëgmal muy wàllu citerne ak bâche à yaakaar naa ne le service technique engagé woon na que ne dina jàppandi mais li si des rek mooy un suivi laa ci ñuy jeexal dinañ ci wax nan lañ koy toppee yenn forage yi il a dit donc déjà jot nañ ko dépanner donc li si des rek mooy ñu jéem a améliorer ba mettre en place des citernes pour pallier ndax mun mënuñu ne du am à cent pour cent su dee jafe-jafe am na rek teen yi mën a jël teel a ñëw au secours pour mun a wàllu askan wi ci wàllu ndox ne ku ne màggal aussi ndax wax ndox donc loolu moom euh, dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax li ci des mooy euh, wàllu commerce loolu sax foo dañ koy rafetlu ndax déjà li ngay saytu mo loolu mooy liggéeyu service technique yi li ngeen demande mooy ñu fexe contrôler donc loolu foo naa ne mooy këru métier service technique yi donc ginnaaw donc dañ ko loolu bu baax bi nga xamee ne aussi comité d'organisation bi sàkku na que na ci wàllu commerce ñu saytu ñam yi nga xam ne moo nee ci marché yi ci wàllu également santé animale muy les services techniques de l'élevage mën a contrôler également les produits d'origine animale donc loolu foog naa ne seen liggéey la xanaa kañ dañ koy gën a renforcer ndax bés bi moo koy waral kon dolli effectif yi dolli également leur présence sur le terrain ndax lool rek mooy mën a tax liggéey bi aussi yemb ba lépp loo xam ne produit bi lore la ñu mun koo teel a génne ci ci marché leneen li ñuy jeexale rek ci wàllu communication. loolu aussi sàkku ngeen ko par rapport ak couverture médiatique bi au niveau de la RTS dinañ ko yëgal aussi suñuy kilifa ci bataaxal Sonatel ñaari ligne ADSL pour internet loolu foo naa ne aussi euh, dinañ ci jéem a taxaw baax fi ñuy daaneele rek mooy wax aussi engagement yi nga xam ne CD service yi jëlee nañ ko fi ah nañ ci góorgóorlu ànd ceeg Pastef borom bi nag mooy mottali waaye nag am nañ yaakaar ne suñ ci àndeek Pastef suñu borom mënuñu dimbali ba lii nga xam ne moom la comité d'organisation bi mëbët suñu borom defal ñu ko beneen bi nga xam ne aussi seen recommandation muy le suivi parce que tamit suñu jógee ci réunion bi dëgg la liggéey bi dina bari waaye préfet Mbacké mi ngi woon ci yoon wi waaye du tere dinañ ko jox bataaxal pour que suivi bi boobu tey jii moom mi nga xam ne moo gën a jege nekk dans son département nekk le niveau opérationnel nañu koy defal du yëgal aussi lépp loo xam ne jafe la ñu teel koo yëg lu ñu si war a mën a jubbanti ñu jubbanti ko mais également nag fu ñu si am jafe-jafe aussi dellu si waat si yéen wax leen kat fii am nañ si jafe-jafe foo naa ne noonu lañ koy dundee su ko defee nekk aussi ndax am nañ loo xam ne ñàkkul yéen mën ngeen ko cee indi en terme de plaidoyer ba mu antu mais suñ ko bokkee am nañ yaakaar ne jafe yi mun na mun na wàññeeku noonu lañ xalaatee doxale mbir mi tamit ba suñu borom yóbbu ñu seeg jàmm ba lépp loo xam ne ñaan nañ ko suñu borom defal ko li des rek foo naa ne di leen ñaanal également ah ñu suñu borom may ñu ngeen delluwaat si jàmm ba incha allah rabi lépp loo xam ne yaakaar nañ ko ci bés bi suñu borom euh, defal ñu ko mais en tout cas engagement bi mu ngi fi te xam naa dinañ am Pastef boo xam ne moom lañ ko war a ànde ndax noonu lañ ko doon liggéey bu ñu nekkee département de Diourbel mais incha allah fas yéene ko aussi continuer ko au de la région de Diourbel ñu ngi doon wax léegi rek foog naa ne préfet Mbacké egsi na peut-être nag euh, dinañ ci briefer après dans mu bureau mu xam. yan tënk lañ fi tënk su ko defee moom mu defal ñëw bi comme ni ñu ko xamee rek jafe-jafe jamono yi dafa dafa bari ñu ngi ci waajaay élection muy préfet sous préfet ci liggéey boobu lañ ne mais du tere nag dinañ ko wax li nga xam ne moom la ñu war a suivre et ñu ànd ko moom incha allah rabi dëgg la nag loolu moo waral euh, tardé bi mais yéen moo doon mu fekke ko moi personnellement maa ne ko daal baa ñu démarré soo ñëwee la nga xam moom la ñu tënk dinañ la ko loolu moo tax peut-être euh, te mu nekkoon ci beneen liggéey boo xam ne kilifa yi ñoo ko santoon ngeen xamee ko noonu mais du ñàkk bañ a ñëw ci teewaayam fekkee ko incha allah rabbi donc kàddu yooyu daal lañ bëggoon yëkkati di ko daaneel di sakkuwaat ay ñaan bu baax mission bi nga xam ne moom la ñu kilifa yi sas ba suñu borom defal ñu ndam yëpp. donc ab Ibrahima Fall moo nekkoon préfet bu Diourbel moom nekkaat fii nag comme gouverneur région Diourbel kon foo naan liggéeyu Baye Fall koy gën laxasaayu rek ànd koog ñëpp incha allah rabbi donc sëñ bi jox la kàddu rek nga defal ñu ñaan. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu monsieur le ñi ngi lay nuyu ci turu Serigne Sidi Mokhtar ibn Cheikh Abdoul Qadir mi nga xam ne moo ànd ak délégation bi ñëw te yor organisation màggal Serigne Abdoul Qadir muy kàddu yi nga xam ne kàddu yi sant la sant la ci dalal gi ak ni nga taxawoo liggéey bi sant mboolem chef de service yi nga xam ne ñoo fi nekk ak li nga xam ne jël nañ ko fi ci ay dogal jël ko fi ci ay pas-pas yoo xam ne bëgg nañ koo amal ngir niñ bëggee màggal gi am mu amee noonu kon ñu ngi leen di sant ci pësteef boobu ci turu mbooleem comité d'organisation bi nga xam ne ñoo àndoon tënk niñ gis ne mooy tax màggal gi organisation bi jaar yoon ndax ku ne xam na dayoob màggal gi ak la fay daje ci mbooloo ak période bi nga xam ne ci la màggal gi am mu tombeek nawet ak li ci nekk ci ay jafe-jafe ba ñoom ñu xalaat ba tënk waaye bi ñëwee li ñu waxoon lépp gis nañ ne monsieur le gouverneur chef de service yi jël nañ ci ay engagement yu wóor yoo xam ne dalal na xelu sëriñ bi kon mu ngi lay sant ci loolu ci turu sëriñ Cheikh ibnu Cheikh Abdoul Khadir waaye ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne mooy xalif général di murid ci lépp loo xam ne ñi ngi koy def ñi koy def ci ndigalam di la ñaanal ci mission bi nga xam ne dénk nañ la ko yàlla defal la ci ndam di ñaanal mboolem ñi nga àndal sous euh, préfet bu departement Mbacké waaye sa monsieur Ndiaye sa adjoint bi nga xam ne suñu xarit la suñu wëlëre la ñu yàgg liggéey lool ñu ngi lay ñu ngi leen sant ñoom ñëpp di leen di leen di leen gërëm di wane ne nag liñ fi wax lépp lu ñu yitteel la loo xam ne waaye rawatina sax ci ci wàllu communication bi eh, liñ ci wax moom it ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax loolu moom sëriñ yóbbante bi sëriñ Saaliw la <laughs> mu ñu ñu bàyyi ko xel waaye sëriñ bi it mi ngi beral ak cant monsieur le maire sëriñ Abdou Lahad Ka ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci lépp loo xam ne yitte la joo xam ne yegg na ci moom te mu nekk ci domaine am bi nga xam ne moom moo ko war a def mi ngi ciy taxaw ni mu waree loolu it ñu ngi leen koy seedeel kon di ko di ko sant kon daal xam naa ne kàddu yooyu kàddu yi sant la yoo xam ne sëriñ bi jotal na lool lépp loo xam ne xëy na ci mm, ak manqué la ci ci nun ñii la waaye am nañ mbégte bu baax a baax ci réunion bi ni mu tëdde ak engagement yi ñu fi jël yoo xam ne dalal na suñu xel ci ni màggal gi war a tudd incha allah li ci des mooy ñaan suñu borom subhanahu wa taala ndax lépp ci loxoom la nekk euh, liñ fi liñ bëgg a def mu kàttanal ñu bañ man koo def ci lépp nekk loo xam ne njariñul jullit ñëpp la njariñul réew mi yëpp yëpp lay doon te loolu moo nekkoon kàdd yi nga xam ne ñu ngi ko doon wax ci turu ci turu sëñ bi